rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu ñu yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla din defal jàmm fu mën a nekk dellu sonen seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amal seen sit bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 mi minam dekko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi ngeen di gis ci photo bi mu di góor gi ngeen di gis wuyoo ci turu sëriñ Basiiru Mbay te dëkkoon ci dëkk bi ñuy wax Thiey wala mu nekk ci côté piir yàlla dogal ñun ñëpp ñu yama yëgandoo xew-xew bi yàlla dogal mu ñàkk bakkanam ci ay coowoo ak ay wuute yu am ba nu lor ko ci ba ñàkk ci bakkanam Sénégal gépp na akaar naa ne ñëpp ñoo ko yëgandoo ñu yëkkatay kàddu yoo xamante ni dañ koy jëmee ci jëmmam di ñaan yàlla mi nga xam ne bari nañ jéggal mu jéggal ko te tàbbal ko ci àjjana di ñuy wax àjjanay si te mu wéttali ko fa alxuraan ak sunna si yonente bi te yàlla saxal ko foofa mu doon noflaayam ñu koy jaale mbooleem umma islaam bépp sax laay wax ndax kii ah, bu fekkee xañ ne yi nu wax ngay wax na ci lislaam rek la faatoo dëgg la nag xañ na jógunu sax di wax ci mbir mi nan la tëddee ñii ñoo nekk ci yoon ak ñi nekk ci loolu du sunu mbir ginnaaw ma nga ca mbiru ña nga xam ne ñoo ko yore daje rek xew-xew yu mel ni jullit war naa am lum ci jàng surtout xew-xew bi nag dellu ci mbir moo xamante ni dañ koy askanale mbirum diine euh, moo tax rek ñu bëgg cee wax sunu xalaat bu gàtt gàtt waaye di wax ne yu mel nii Euh, jullit bu xewee war na am num ci dégge wala lum ci jànge lim ci war a dégge mooy ci wàllu diine jii nga xam ne diine lislaam la nga xam ne diine ji loo xamante ni dafa am lu la ciy dugal la ciy dugal mooy nga gëm yàlla gëm ab yonentam gëm malaaka yi gëm bis bu mu juba jëf yi ngay jëf danga ciy dëgërloo ngir dégg ci ak topp ci ndigalal sunu borom waaye jëf ya ma naa am sax du fekk ne moo lay jariñ waaye ndigal sum borom la nga cay def julli gis ngeen ne suñu borom da cee teel a gaay teel cee wax jaam bi mu teel ko di ko ci jaamoo ci julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na li nga xam ne moo di yuq lislaam mooy julli ku màbb julli màbb nga diine ji gis ngeen ne xale bi bu amee juróom-ñaari at yonent bi nee na nan koy digal mu julli su fekkee ne julliwut su fekkee am na fukki at ñu digal ko julliwut nañ ko dóor ci ponk lislaam yépp loolu rek nga ciy dégg ne nañ ko dóor ci julli te booba de xale bi amaana ponk yeeg sart julli yi sax mënagu ko waaye li nu bëgg mooy julli teel a sax ca xolam ab xolam nangu ko ay cëram teel koo nangu mu tàggatu ci ba nga xam ne dana ko def te du ko def comme sport du ko def comme aada waaye da koy def xam ne ndigalal sunu boroom la Euh, dafa mel ni nag Sénégal dafa mel ni jëriñoo gunu dëgg-dëgg ci diine ndax bu fekkee ne julli inna salaata tanha anil faxsaay wal munkar julli day dindi ay ñaawteef te boo demoon tey ci jàkka yi wala jumaa yi wala ndaje yi diine yi xiiroo bi ak ŋaayoo bi dangay ngay xool boo demoon ci jàkka joo dem ba mooy tuut imaam yi jubu jubóowunu noddukat yi jubóowunu ñaata jumaa lañ fi tëj ci diggante ay imaam ak noddukat ak yooyu kenn xamul nu mu toll ci Sénégal ba ni tey am na jumaa yoo xam ne loolu moo ko téye boo dikkoon ci tarixa yi noonu la mel waxtu wu nekk yaa ngi dégg ñuy gaaruwaale di xuloo di coow guddi ak bëccëg te moo ne de lislaam ji di santunu loolu diine bi di santunu loolu ba ci xew-xewi diine yi di am bu amee dangay ngay dégg gaaruwaale yeeg euh, bu dee màggal tuubaak gàmm yeeg yépp da ngay dégg gaaruwaale yoo xamante nii yan saay sax nga dégg ko ci koo xamante ni ci ngay doxe xeeb ko ba faw ci ngay doxe xeeb ay kàddoom ba faw <clears throat> te loolu dara dara dara waralu ko rek lu du xëccoo ña ko sosoon ak ña ñenu jiitu woon ci diine yi de bu nu jàngoon seen alaaxa xool ko gëstu ko te jàng ko jàngin wu dëggu ngir bëgg a xam fan la dëgg nekk ak lan moo alaaxa yi doxoon seen dëgg du nu mel ni waaye dañ koy jàng sax amaana ngir par parloo ngir xam jan daraja la ci nit am ak nafal fan la darajay diw sàngam toll kilifa sàngam waaye jàngunu ko sax ngir bëgg leen a roy te yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom dane wutal naa leen royukaay bu baax boo xamante ni bu ngeen ko toppee da ngeen gindeeku da ngeen jub kooku nag moo indi diine ji mooy wax ne nii la mooy wax ne nangam la diine ji bi mu koy kii dafa jublu woon ngir defar nit nit mën a baax ngir mën a baax mën a baax gi mooy faaw ñu indi la diine joo xamante ngay ku mooy loolu boo demoon tey ci télévision yeeg rajo yeeg ustaas ya nga fekk ñu fay waxtaan ñoo gën a mën a xiiroo ci wàllu diine ñoo gën a iñaanante ñoo gën a mën a boddante ñoo gën a mën a xeebante amul genn laabirate gu am loolu nag kenn xamul lu doon te sëñ Tuubaa de ñun moom mi nga xam ne mooy suñ sëriñ dina waxoon ne képp ku ngeen gis gémmañam di tudd laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bu leen ko noonu xam leen ne kooku seen mbokk la te yi ñuy def li muy indi mooy day indi rekk ëllëg tey ku bëgg a dugg ci diine yi lislaam da ngay wax ne ndax jar na ko ndax diine ji bu ma ci duggee ginnaaw diine ji ñooy defante ni seen biir te loola de gëjoon na ci diine fopp ay jaasi ak yat di xeex loolu gëjoon na ci diine ndax yonante bi ak i saxaabaam ñoo ko defoon dëgg la loolu bokk na ci li mu yàq leen lislaam waaye ku baax dafa waxoon ne diine de ba ko jaaseeg ak jaaseeg ay xeej na gëjee yàq li ba léegi teraanga moo koy yàq li jàpp naa ni lii xew ci dëkk yi xew ca dëkk yooyu dëkk yu bari lay xew da nag dëkk yooyu ñaari ci la ëpp fi mu toll bu ngeen seetloo seetlu woon ngeen fii ñu fi doon wax ci affaire ay xeet ak du ngeen suur ci armée yeeg ci dëkk yooyu yaakaar naa ne ci côté tundu Kajoor woowu la doon ba léegi yii nag dañ ko war a dakkal ci réew mi nit siwil du saafaraal boppam du fajal boppam siwil du saafaraal boppam du fajal boppam diine ji bu ndemee bu mënunoo defar suñuy xol jub suñuy yéene baax daanaka danoo nekk ci diine waaye jëriñoowun ci diine tey tarixa yeeg kuréeli kii yeeg xam nga nit boo mënee jàkkaarloo moom naa ko ahlu biddaa yow tudde sa bopp ahlu sunna wal jamaa jël kee tur wu ñaaw wu nekk te tur woo ngay tudde nit ki kat tuddewu ko boppam kee di la tudde waxaabi yoona te yow woo ko sa bopp yooyu dafa mel ni ñun gàkk yi am ci ñun kenn kenn xamul nu tool toll ñàkk maandu gi saa booy wax loo xamante ni lislaam la faw nga gaaruwaale ca lu ki nit ñi sax dem nañ ba loolu la ñuy gën a déglu ci li nga wax ni nii la ñuy jullee nii la ñuy woore nii la ñuy aje li nga gaaruwaale kay doye di tarixa sàngam wala doye di sàngam wala doye di association sàngam loola la ñuy gën a dégg jàpp ne ñoom fi ñu jàpp rek mooy fu wér jikko yii nag paase wut ak jikko yi yonante bi doon dindi te ba muy dem yonante bi dindi na ko ba sonn mënu koo dindi muy jikko yi naafeq ba bi muy dem am na ay naafeq yu mu waxoon xosayfatul yamaan ne ko xosayfa ñii listu naafeq la ñor waaye jëfin yi jëfinu naafeq dong la waaye du jëfinu diine du jëfinu ko gëm yàlla du jëfinu ko bëgg diine du jëfinu ko bëgg yàlla ku bëgg yàlla lu nitu yàlla def dalay neex lu def ci yàlla di ko defal yàlla da war a gëm ni kii koy def kat boo amoon alal ji wala kii koy def da nga ko war a ñaanal kii koy def kat danga ko war a sant kii danga ko war a bëgg kii da ko war a xam ne sab soppe la waaye ñun yii ay ennemi la ku nekk jàkkaarloog sa morom kuréel bu nekk tarixa bu nekk jàkkaarloog sa morom jumaa ju nekk ña fa nekk di jiite dafa nga ne loolu fu nu war a defarlu foo xam ne fa la yonante bi daan defare nit ñi ci julli am na ko mas a dikk ci kalaame yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ko kalaame doomam ne ko doom ji dafa xaw a toppul sama ndigal deful nangam nangam soxna Aysa moo solo addis bi Aysa nee na yonante bi ne ko waaye dina julli mu ne ko waaw mu ne ko bàyyi ko julli julli dina ko defar waaye kooko boobu buy julli day fekk am lu yees ci xelam na muy yeesale njàpp noonu lay yeesale xolam ak ak laab ak jariñu yi daal xam naa ne yu doy waar la yoo xam boo koy wax sa yow da am ñaara lay dal xol bu naqari lool ak kerse gu mat ndax mbir mi ci yow la xewe mooy ci wàllu diine la xewe ci wàllu ñoo xamante ni dañuy woote ne waxta simon bi abdillahi jamian wala tufarraxu yi metti na lool te doo xam loo koy mën a firee kenn mënu koo firee lu dul nii nga ko gise rek mooy nit ñi daal defar góowun ci ci diine dañuy julli di sëgg ak a waaye xamagu amagun njëriñal julli dañuy woor di xiif ak mar waaye amagunu ko fi mu toll jumaa joo mën a tudd ak lu mu rëy rëy ak lu mu kii kii boo demoon imaam ya fay juddee ak a ñodd ña ngay xiiroo ko ŋaayoo benn juma bàyyi bu sa xel mën a dem rek bàyyi ko yépp rek daanaka rek lii def faa am feebar bi te bis bis day xëy rek xam nga feebaru iñaan da nekk di ko kii day mujj xëy xëy rek génn buy génn nag nii lay génn exploitation bu mag nii mooy da ngay jikki-jikki seere ko bu mënatoo ko seere nga jikki-jikki jëf lu ñaaw loo xamante ni dafa nga ne lii jàkk na ci diine wala jaaru na ci diine wala jàkk na ci dëkk bu mel ni dëkk bi xanaa lii jar na sax gàddaay dem beneen suuf yonent bi digal nañu ko ne suñ borom nee na suufas yàlla si si fii na fun la xatal nga gàddaay dem ci seneen suuf ngir jaamu fa yàlla rawale sa diini yonent bi jógewul ma màkka ndax xatal gum ko xatal mu ñëw Madina bi mu ñëwee màddina ci la tasaare diine ji ci àdduna bépp fu guddi ak bëccëg di àgg di bi àgg na te waxoon na ko nee na woon sama woote bii fu guddi ak bëccëg àgg fi diine ji dana fa àgg hmm? nit ku nekk doo liggéeyal sa bopp liggéeyal sam réew liggéeyal sa sa sa diine fexe ba defaru bala nga fay jóge bay dugg ci biir suuf nga defaru biñ la fi indi danga ngaa setoon wicci ah? loola mën a setal lu dul alxuraan loola mën a setal lu dul eh, julli la mën a setal lu dul bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa yooyu mën nga koo bëgg ba noppi jëf yu mel nii di dox sa diggante ay xiiroo ŋaayoo iñaanante fii xanaa ña ña ña dooni ceddo sax bu njëkk bàyyi woon nan ko yi daal yu ay mettit la yoo xam ne ñu ngi ñaan yàlla defal ko njéggal te tàbbal ko àjjanay firdawsi Euh, yàlla na ko yàlla defal ñi defaragut ci diine sama kalaas gi ak ñeneen yàlla na nu yàlla suub yàlla na nu yàlla xooj ci géejug diine diine lislaam ay tawxid ak sunna si yonente bi bëgg ko ba xeetu luy iñaan ak luy parparloo ak luy kii lépp génn sunu xol yàlla na yàlla laabal sunu xol setal ko yonente bi salaa sallam daana ñaan ne daana ñaan ne yàlla na fàtte naa ñaan gëm daan ñaan daana ñaan ne sunu borom yàlla ma saxal ci diine yaa ma xaalibal xuloo bi sabit xal bi ala diinika yàlla yàlla defar sunu xol saxal nu ci diineem ji <coughs> sëñ tubaa ne yaa ma xaalibal xuloo bi xaalib xuloo ba na anil xuyoo bi waaw kon yàlla na yàlla jéggal te tàbbal te boole na ci jullit yi nga xam ne dañuy teg ci saraatal mustaqim mooy ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ci li nga xam ne moo di alxuraan ak sunna bi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 ngir ay xibaar yu wér te wóor